jëf ya saa ñett am bis piyeer ak yowaana dem ba bëgg a dugg ca kër yàlla ga ca waxtu ñaan maanaam tisbaar fekk ñu indi fa nit ku judduwaale lafañ ñu di ko teg bis bu nekk ca bunt ba ñuy wooye bunt bu rafet ba ca kër yàlla ga ngir mu yalwaan ña fay dugg bi mu gisee piyeer ak yowaana nag ñuy dugg ca kër yàlla ga mu dëkk leen loxo ci kaw loolu piyeer ak yowaana ne ko jàkk te piyeer ne ko xool nu lafañ bi xool leen yaakaar na dina jot dara ci ñoom noonu piyeer ne ko awma xaalis awma wurus waaye li ma am dinaa la ko jox ci turu yeesu kirist mu nasaret doxal mu jàpp ci loxol ndijooram yëkkati ko ca saasa ay tànkam ak ay kostanam dëgër mu tëb daldi taxaw di dox mu dugg ak ñoom ca kër yàlla ga muy dox di tëb tey sant yàlla noonu ñépp gis ko muy dox di sant yàlla te ñu xàmmi ko ne moo daan toog di yalwaan ci bunt bu rafet ba ca kër yàlla ga ñu daldi waaru lool te yéemu ci li ko dikkal naka waa ji taq ci piyeer ak yowaana ñépp waaru ñu daldi daw fekk si leen ca barab ba ñuy wax werandaa bu suleymaan bi piyeer gisee loolu nag mu ne mbooloo mi yéen waa israyil lu tax ngeen waaru ci lii lu tax ngeen di ñu xool jàkk mel ni ci suñu kàttan mbaa ci suñu ragal yàlla lañu doxloo kii yàllaay ibrahima ak isaaxa ak yanqooba di yàllaay sunuy maam màggal na ndawam yeesu yéenu xëccoog moom ba jébbal ko pilaat fekk naroon na ko bàyyi yéen xeeb ngeen aji sell ji te jub te tinul ab reykat boom ngeen aji dundal ji waaye yàlla dekkal na ko seede nanu ko nun ñépp ci gëm turam la nit kii ngeen di gis te xam ko dëgëre waaw turu yeesu ak ngëm gi jóge ci moom moo tax mu wér pen ci seen kanam yéen ñépp léegi nag mbokk yi xam naa ni ñàkk xama tax ngeen def ko yéen ak seeni kilifa waaye noonu la yàlla amale li mu yégle woon lu jiitu jaarale ko ci gémmiñu yonent yépp naan almaseem dina sonn tuub leen seeni bàkkaar nag te waññeeku ci yàlla ngir seeni bàkkaar far noonu jamonoy peex dina bawoo ci borom bi te muy yebal almasi bi mu leen jagleel maanaam yéesu asamaan war na ko yor ba jamono ji ñuy defaraat lépp di jamono ji yàlla waxoon jaarale ko ci gémmiñu yonentam yu sell yépp li dale ci njaal beenug àddina ndaxte musaa ne woon na boroom bi seen yàlla dina leen feeñalal ci seen xeet yonent ni man nangeen ko déggal ci lépp lu mu leen wax képp ku déggalul yonent boobu des na la far ci xeet wi li dale sax ci samwil ak ñi ci topp bépp yonent bu wax yégle na bés yi yéen nag yéenay donn yonent ak kóllëre gi yàlla fasoon ak seeni maam bi mu naan Ibrahima xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci kii soqi ko ci yow yàlla feeñal na ndawam jëkku ko yebal ci yéen ngir barkeel leen ci woññi leen kenn ku nekk ci say bàkkaar